waa asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen jaar di jaar waa àdduna di jaar waa Sénégal gépp gépp waa di leen yëgal nag ni dañoo am xew-xew bu mag mi soirée maam Cheikh Niang fee ca tropique Cabana di ci woo ñëpp da ci woo waa Sénégal da ci woo ñëpp waa tey nag ma toog sama doom ndey sama rakk sama xarit ngañ jaay borom Moutani ñu war ko bàyyi nag mu waa Moutani woo waa ñëpp man moom ba ma waa Touba waa waa Mbacke koy xaar nag moom waa waa Moutane woo ñëpp waa Ngañ noo gisee bésu maam Cheikh Niang bi. ah bis bi moom suñu bis la moom ñëpp ko moom waa groupe jàmm ñu bis bi ñu si waa Moutane gépp rek di woo Bébé Aïssa Alaye Seydja ñaar ak ñeneen ñëpp ñu jàppale maam Cheikh bis bi moom suñu bis la moom di bisu maam Cheikh ndax tey maam Cheikh moo teewal ndongolo te lu mën a xaw rek ñëpp rek yu war a mànkoo dem jàppale maam Cheikh waaw moom lépp ñoo ko moom dañu war a jàppale bis bi suñu bis la ñun bis bi maam Cheikh bis suñu bis la. waaw ndeysaan ndeysaan dégg nga la wax noonu ngañ ni wax rafet na trop waaw comme mais xam nga rek comme noonu la demee ñi ñëpp ngeen dégg ngeen déggee ko noonu le 26 la doon nag fee ca Kabana tropique ngeen bu kenn des na ñëpp ñëw waaw léegi loo ci dolliwaat ngañ. waaw ku nekk nag lu waa lu waa jàppale naka bàyyi ndax tey moom bis bu maam Cheikh wootee bu ma leen donguloo moom woote quoi. nañ bàyyi lépp rek ñun waa groupe jàmm àndo tam jàppale maam Cheikh suñu rak suñu lépp encouragé ko jëm sa kaw sa kanam mm. waaw ndax maam Cheikh moom fa ndongo tegoo tànkam rek incha allah rabbi si kaat suñu borom bi dafa war a teg tànkam waaw mais parce que dana mag ja rakk ja kon nag maam Cheikh yàlla yàlla nekk ci tànki Ndongo Lo da Ndongo Lo meloon ci xoli nit ñi yàlla mel noonu moom ci xoli nit ñi ci barke maam Cheikh Fall wasalaam